xaw ma xër la xaw ma lan lay mi ngi ñëw mi ngi ñëw waaw vraiment non waa bàkku waa d'accord mën na ne non non dama bëgg xale mu yaatu. as tëgal. arrière leen arrière ay waay arrière leen waay sama gars yi leen waay yéen eh lii lan leen kenn ku ne yaa ngi bëgg a lii day yàq rek eh ñii ci ginnaaw ñoo andi problème yi ma fil bi foofu ah ci suuf lay jaara ah. waaw góor boy rofal ma ko nii mu jaar ci suuf jaar waaw ay waay gars yi leen waaw waaw dama nekk ci open press taluma bu ma paree naa la envoyé taluma la bëgg a wax. <laughs> ñu arrière xanaa. <laughs> eh xale bu jigéen sax nee na ngeen arrière. arrière leen. booy la wax. Bomar Bomar. yéen yéen a war a defar borom si lay leen. borom si lay yéen a mani. kenn ku ne yaa ngi taxaw fasal yéen a jege. waaye booy bu ngeen bëggee waaye gaay arrière leen oh jërëjëf waaw kay cey fi sa Balla waaye yaa ni toll sa toll ndax da ngay jàmbaar te doo tas yaakaari géejawaay foo demee lamb da ngay am ndam yal na la yàlla may ndam ci barki Seydil Hadji Malick yal na nga am ndam ñun géejawaay ndam rek lañu xam maa la ko wax dama bëgg dóor ko mu daanu rek benn yoon ñu nekk fay taay di kii yëkk a def yëf waaw booy lii lan la yow booy li ngeen def nii wóorul de ah ah ay waa ji arrière leen sama gaay yi. waaye nag kaay de dinaa leen xamal leen de am yambar du am lii de am yambar du am lii gaay yi léegi kuy gañe lañ bëgg kuy gañe boo dee daanu kenn du maa la ko wax da ngay jàmbaar. cey sama doom ji sama jàmbaar ji ana waa Géejawaay ana waa Géejawaay laa ilaaha illallah ñaa bu ndaw ñëw na Balla Gaye dée ngi ñëw ak fa Mama Fall ak Ketchup ñu ngi ci wi loo wax as Lass ma jox la bii aja jox ko eh ma ñëw ma ñëw lan la wër ci góor bu dëgër baa ngi nii wow kongu day def effet ma ñëw ma ñëw gaay ma ñëw ku aw loolu yàlla na nga fekke déwén ku aw loolu yàlla na nga fekke déwén góor day dëgër lan la ñuy wër ci góor bu dëgër baa ngi nii wow kongu nay def effet bu dëgër fi sabal la lan wër ci rafet ci diwin bu dëgër baa ngi nii wow kongu day def effet waaye dégguma dara loolu la ñuy wër ci góor wow kongu day def effet bu dëgër fii balla loolu la ñuy wër ci góor bu dëgër baa ngi nii wow kongu day def effet xal leen xal leen loolu la ñuy wër ci góor wow kongu day def effet bu dëgër dégguma dara loolu la ñuy wër day def effet bu dëgër ñu dem ñu dem tas ba tas dix encore tas ba tas dix ñu dem e car ki dama xura mbax gi dara mbac ki gigin gigin car ki dama xura mbax gi dara mbac ki da tadak bul xoole na nga jàpp a jëkkër wuras wuras ki daas eh loolu la ñuy wër ci góor waaye dégguma dara loolu la wër ci la ñuy wër ci góor waaye dégguma dara lan la ñuy wër ci góor waaye dégguma dara lan la ñuy wër ci ay waay tas ba tas gis ñu tas ba tas gis ñëwal wuy car ki demax rambax gi daramat ki gigin gigin car ki demax rambax gi daramat ki gigin gigin urat gigin urat gigin gigin kuñ sa mbër res res ki daas maa ngi leen ñaan ngeen fekk ma sama kër ñu waxee ko foofu fii dafa désordre moo tax.